gaay da ngeen a jug taxaw ñu daal di teeru ambassadeur bi dox ci diggante Sénégal ak euh, ak bitim réew te indi fi raay bi ah. Ah. ñu koy wax son excellence monsieur Pétain l'ambassadeur de la meew monsieur l'ambassadeur ambassadeur Pétain <laughs> voilà ambassadeur de la meew ça va bien merci beaucoup bismillah mon ami mon frère monsieur l'ambassadeur avant tout avant mm-hmm. dëgg yàlla fu sori laa jóge ba may ñëw di indi trophée bi. te dañoo ñëw ba Kenya vol bi paan am benn embouteillage bu rëy ci yoon bi. ci kaw waaw ci kaw. mais yàlla dafa def dama def mécanicien avion si laa wàccee man fépp fu may munti dem damay yóbbaale kele douze heures. si laa taxawee. defee de ndekk ne benn écrou moo doon suus. moo doon suus waaw affaire bi dem na ba ba wadd. ma ànd ak moom si laa ko récupéré demaat. indiwaat ko. parce que affaire u la warul réeree noonu. waaw. ndeysaan. kii da ma si mission bi. non non. non dama commencé tàng. bilaay lii tawi ma ko sax. non c'est dafa naturel de. bilaay dafa naturel. ça va. Oh, loolu lii ba ma koy andi. ah fi ah, jaar moo bari parce que soo xoolee. waa canal dañ ma woo. ne ma ku moom lii ma ko 2STV. Uh-huh. waa TV5 woo ma. TV5 kaka moom moo ma woo Cheikh 5. oui Cheikh 5 moom ah, moom. TV5 Cheikh 5 ah, ah. Cheikh 5 waaw tubaab la. moo moom TV5 moo ma woo ne ma ku moom li ma ne ko 2STV. mais yow amul ay télé yu ko doon jéem a këf di ko jéem a sàcc. bari na pour jël ko bari na. ay dafa mel ni dafa ah? mel ni dégg nañ ne amoon na ay tentation agressive yoo xam ne. am na ci xam nga xam nga vote yi ñaata la woon. waaw ñaata. Sénégal 19 télé demoon nañ. waaw à part 2S mu dugg jël paie. yeneen télé Sénégal yi 42 43e 44e 45e. c'est Afrique c'est Afrique. mennum 2S moo dugg ñu ñu jox leen trophée bi xam nga lii du trophée bu ndaw trophée YouTube. Ah. waaw fekk ba may toog waa ji di bind affaire bi da lu tax ma kontaan li mu ko doon bindee ak yéene. ba pare du ginaaram la yor di ko bind. mot par mot. Mhm. boobu yaa ngi toog sama kanam. Mhm. sama kanam. Mhm. idée bi maa ko ko jox. est-ce que xam nga YouTube YouTube euh, ku créé YouTube Cheikh Tip. Cheikh <laughs> ay lii tamit waaw. ah wax nga dëgg de. Eh. fii lañ koy ngeen de jam ñaajo gi. dëgg la dëgg la yow certib jas la dëkk. Hmm. moo créé YouTube. wax dëgg yàlla ba mu ko créé. dëgg moo tax bañ ma wooyee pour ma ñëw jëlal li waa 2STV dama see sawar. Papa Ndiaye nañ ko bàyyi. Papa Ndiaye. bul ko bàyyi waaye nag. bare na tib yoo xam ni ñee ngi koy diwoo ci moom la ko soxbee bi muy jëlee. ok nga ne ay tibb yu xeew yu. <laughs> waaw kii dama bëgg mu ñëw ci digganteem ak Sadio parce que ni mu bokk ak Sadio dafa dafa jege. Sadio kii mi lay jox meew yaa ngi naan attanoo ko ba pare ngay kii fii. non man nga Messi laa bokkal. ah bokk waaw Messi. Messi wax dëgg yàlla waaw. bokk ak Sadio. non Messi laa bokkal parce que Cheikh si mooy sam papa. Mhm. Cheikh bu nekkee sam wax dëgg yàlla moom Ibrahima si jur ko te suñ ñaari papa yi ñoo bokk ndey ak baay daal waa wax dëgg yàlla moom laa bokkal Sadio maane sama xarit la dañoo fubalandoo mhm. waaw wax dëgg yàlla ba may nekk Red Bull Salzbourg fa laa nekkoon di fubal Salzbourg Sadio maane club bu mu njëkk fubal ah. ci laa fa dugalee trois mille bi tubaab bi ne ma kii xajul fii ci laa ñibbisee ko trois mille bi laa dugal wax dëgg yàlla si benn saison benn saison nga am ci trois mille bi waaw loolu loolu histoire loolu dafa rëy loolu boo demee stade Léopold Sédar Senghor da ngay gis ni bind ko. mais président yëg na loola. Ah? trois mille bii yi nga dugg président président day def dara te ko. président lu muy munti def man lay woo allo Patin yaa ngi may dégg lii laa bëggoon def ma def ma ne ko defal wala bul def. Mm-hmm. sama xarit la. Mm-hmm. mais Patin. oui euh, ñun fii ñu toog avant ngaa ñëw dan tàngoon. Mm-hmm. mais ñi ngi sedd guy. te ñun xamuñu lu ñu seddal am di je sais pas. non xam nga lu tax xam nga lu tax du seddal. duñ jékki-jékki rek seddal 2STV lañ toog télé bi saf nit ñi. Mm-hmm. fii mooy 2STV ah. mais raay bi Nations Unies bi ñu ko préparé tey war la ko jox nga indi ko ban discours nga fa lancé. waaw discours bu fa njëkk jox dama ne wax dëgg yàlla je suis de tout je suis très content de vous ce trophée. Mm-hmm. xam nga man man français kii laay làkk Gabon. sama France France Gabon lay. waaw moom la mujj coloniser nag looloo tax parce que xam comme Gabon moo coloniser Sénégal. moo tax Gabon la mujj coloniser a kontaan kam ku ma ku ma jox lii lii ki ma ko jox ndeysaan moo mu ngi tudd Aminta Bassan joué katu film bu mag la woon. non vraiment kii mën na fen am di bàyyi li ngay wax. yow kii sunu papa Iba Der Thiam bi histoire Sénégal turam mu ci. no dama lay expliquer lii trophée bi ki ma ko jox Aminata Bassan la ancien joueur katu film la parce que moom la gars yi woo pour mu jël trophée bi jox ma ko mënu ma yóbbu ko 2S lii ba ma koy yóbbu 2S am na télé yu toogoon foofu di jooy ma ne leen jarul jooy parce que lii 2S moo ko liggéey. te ku ñàkk jëriñu. mais Aminata Bassan moom ngay wax noonu xam nga 2 indi woon na fi Veille waaw xanaa kër Veille Day lan la dalaloon. non dalu ma woon kër Veille Day kër rig anteur laa daloon ah, rig anteur waaw wax dëgg yàlla mel ni waa sunu xarit bi waaw waaw ak yaayam waaw fal waaw yaay ji yow yow yow yow ak a jàppale yaayam rig anteur waaw am ay mbokam la jox waaw xam nga tey xam nga léegi léegi léegi damay dugg Omaro di wax waxu fenkat Omaro gis nga y a pas de gis nga am na benn waaju nekk suñu koñ moom day wër rek di toj picc kanam yobu na papa màkk ren di toj la picc kanam parce que loolu la gëmoon yóbbu na yaay màkk ren waaw toj picc kanam man kàcce nga dëkk yow xanaa foofu condamné ah. picc yi fi lay wàcc wala non Grand Yoff ah, waaw non Grand Yoff xam nga loolu li mu gëm la xale yi picc nu moom ah moo tax Omaro bu duggee sànq di wax ne xaw ma fenn kat lan ku nekk moom ku nekk ak la mu gëm la ku nekk lu mu gëm parce que Sénégal dañoo wax plan Sénégal émergent mhm. man ma génnee ubbi sama école tuddee ko plan fen émergent plan fen émergent ah kon am na benn paa boo xam ne benn imam benn. Euh, mais yow sa liggéey sa métier lan la. waa sama métier wax dëgg yàlla bëri na trop. Ah. parce que ku am dix neuf carte d'identité bëri na métier. dix neuf am naa di fukki carte ak juróom-ñeent. Hmm. kon bëri naa métier. Sénégal fii su ma neexee damay toog Sénégal temps en temps <laughs> xam nga wax dëgg yàlla parce que fii Sénégal lépp lu fi wàcc ci ceeb ah. sama loxo lay jaar. lépp luy wàcc ci ceeb sama loxo lay jaar. port balaa directeur du port bi di def dara dina ma woo parce que dafa am signature par S majuscule man rek maa ko mun Sénégal loolu moo tax wax dëgg yàlla loolu mooy sama. premier waaw moo tax coowal Papa Bombar Sambar Dieye bi. Amadou Bot yaa ngi wax ci yow. Papa Bombar Sambar Dieye. Mhm. Bokar waaw kay bi muy expliquer affaire Sega bi moom wax na ni signature bi nga xam ne moom mi xam nga kii problème bi si la bokkoon. ah bon pourtant Abdou Mbow da koy Abdou tudd. damay tudd. da ngay parce que problème Papa Bombar Sambar Dieye moom signature bi moo ko def ba xaaj génn si banque nga man maay wat ministre yi ak président yi Imam Mbaye Niang maa koy wat ah Mame Mbaye ah. maa koy wat maa koy wat yaa koy wat waaw mais moom dégg naa dafa leeloon ah. ah waaw maa koy wat maa koy wat est-ce que doo ma jàppale ci Tafa ak Amady Mignon parce que ñoom seen léegi day yàq day yàq léegi yow da gis ma wax.